Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. mbokk taal ziar ñëpp di leen nuyu si rabban wa bi islaami diinan bi seydina muhammadan nabiyan wa rasulan wa Qur'an quraan kitaaban wa bi orang duluan wa bi juga Tuubaa xaadim rasul wasilatan di seede ne amul benn buur bu ñuy jaamu jaamu nga di njariñ wala ñàkk nga jaamu di lor ku doo allah azza wa jalla subhanahu di seede ne muhammad sallallahu alayhi mooy ki mu mujj yónni si ndaw mi te fas yéeneetu yónni kenn ba kër muy dajale jaab ñëpp ci kanamam di seede alquran mooy suñu teere seytaane képp mooy suñu moor sëriñ tubaa xaadim rasul mooy suñu wasila di ñëwaat si ay kàddu rek ci liñ ñu faral di def lu bari buñu tassé borom xam-xam sëñ bashir ñu kon ko xam ci sëñ bashir bakki xel kom ku nekk xam ne tol tol islam mom soru ci mom li waraloon sëñ Moutala ñëw ba fii ni Amérique dem Italie ak fu nekk ci aduna bi taxawal fa diine lool rek ñom ci lañ nekk ndeysaan di ko masu bu baax baax si coono yi di dellusiwaat rek ak moom ci ak jariñu ndax boroom xam-xam la di ñaanal ñëpp rek ñu koy ñaanal suñu boroom wéral ay cëram ba lim am pas-pas diine mu taxaw si kem kattanam di sàkkuwaat ñëpp tamit ñuy bàyyi xel ñu mel ni ñoom ndax seeni soxla su leen ko laajut du ko xam te amuñu benn soxla bu dul soxlaab toolu suñu boroom bi dong alxuraan moom lu ko gën a màgg si kaw suuf amut te ñoom loolu lañuy ñuy ca lañ nekk ci da daj yu nek na lancé wat un appel si lu mel nii incha rabbi dees na taxaw bu baax nañ jàng faral taxaw yeen daal yi tamit waaye rawatina moom mi nga xam obstacle la ci yoon yépp waaw ñu suñu koy bayyi xel daal ci daara yi ak ndongo yeen fa yor ndax dama koy faral di wax naan anas ibn malik lan la wax ne inna lillahi taala ahlina min nas ñen ñi ci njabootu suñu borom lañu bok bokk loolu nag dégg rek waaye njabootu suñu borom mom ñëpp si lañ bokk nag arrahman ñëpp si lañ bokk waaye nag ñoom ñi daal xum ahlul xuraan yi ñoom ci lañ nekk xam naa sëñ Bass dañ lay bàyyi nga ziar ñëpp rek waaye liñ lay njëkk a laaj rek mooy eh, dëkk bi ni mel ak nga fi eh, jaamu yàlla tuburankee lool sax gis waa kër ci Touba saa yi ñëwee seen lépp moom daal si si lu baax rek lañ ko jëmale muy si diine ak lu ñoomal waa diine muy ba su mel ne xasida bi lañ fi indi nga gis murid yi tamit capacité bi ñu am pour def collecte di ko defaat si tout sëriñ bi ay këri sëriñ bi ay jumaa ak i jàkk waaye tamit di dimbali dëkk ba nga xam ne dañ ko bàyyi ginnaaw ban taxawaay la war a gën a taxaw bu baax a baax ba doole jooju ñu am ñu mën ko jëf ba mu gën a feeñ sax si dëkku sëriñ ba ba njàngale mi sax sëriñ bi mën saa mën a taxaw suñu jot ba ay junni junni yu mel ni yéen nek ci li ngeen nek bu ko defé lepp day nek ndam islam ndam serign bi ñu bari ñu di الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن المكين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين jërëjëf euh, sëñ bi ñoo ngi lay delloo bu baax di nuyu mboolem mbokki taalibe yi di leen ziar euh, di am mbégte rek di xam ne ni euh, dëgg la lii nuy jóg ci yëngutu de liñ ciy gën a sant yàlla mooy bu ñëwee bu fii te fekk li ñu yëngutu fii mooy li ñu daan yëngutu foofu ci tool yi ca ca Tuubaa yëngu yëngu bi la kon loolu ak cant képp lu ma nekk di sant yàlla bu baax. di loolu li nga wax rek ci mujj gi xanaa di soññi bokk yi baax bokki talibé rek ci góorgóorlu ci fàttaliku ñaari mbir yooyu muy yoonu Sëriñ Tuba bañ ko ñu di ko ñu di ko bàyyi xel baax fi ñu toll xanaa di gën a fàttaliku itte sëriñ bi ci la ko laaloon nag sëriñ bi ci itte la laaloon tariixa bi mm-hmm. am itte lool kawe gën a kawe seen itte gën ko dool ndax fi mu toll jàmbaar lañ lool sax murid yi waaye hmm. jamono bu ne ñu leen soñ ci gën a yokk seen itte rek hmm. mooy tax ñaari li ngay dund hmm. fees la dell ba mën a tuur ba mën a jàll ci kenn ku yéen mën ko jëriñoo waaw te itte képp ko mën a may ndax da ngay xam ne itte yooyu sëñ bi daa demoon tariixa bi wax ni yonente bi dafa musaafaha ak moom waxante moom jeexal يكرب أصحابك بالهمة ولا تربهم بالدرس فقط وربي كل واحد بما يليق به كل واحد منهم بما يليق به كان كل يوم يركضي لا يلتي مم هم جوج هم هم جوج ما يدون تجاكم هم لك بنكو يفرج ولا فني أنا كنت أتعلم واحد واحد يوم مرة يوم ينيو لي من دملا ويوم يوم <laughs> دملا المجنون دملا المجنون himma kon li muy tekki mooy jiit di dox rek am ci pas-pas. Mhm. ngay xool fu kawe nga nga jëm fa. Mhm. am ci way gu toll ni dara du dox si diggante ak moom. Mhm. Euh, ba noppi nag am jom jom ji nag li muy tekki mooy. nga am ko muñ. ci lay métti waaw yooyu daal boo àndee ñaare. lu bari mën naa nekk te it nag euh, yoonu Sëriñ Tuubaa. suñ responsabilité la ñun ñii. rawat na génn ci bitti ñu war jàllale. waaw jàlle gi jamono damay wax du wax kese kese waaye wax la ak i jëf wax la ak jëf mhm. ngay wax tuuti ba mu leer mhm. nga jëf ko bañ gis ko <laughs> da ñaari ko boole ñaari bu lu ci ëpp ñaari mën naa mhm. xëcc keneen ndax dafa bari ñoo xam ni euh, leen dugalee ci mbir du ay wax waaye say jëf la ñuy xool ba ba ba ba seen xel nangu ko ñu dugg si tubaab boobu may nettali ni dañoo dama mas a dem Espagne ci ak kër nii fekk benn toog bu jigéen mhm. mu am pas-pas lool ci ni muy doxee ndax dañ bàyyi leen ma toogal ko ma toogal ko añ tey ji añ ginnaaw bi gaañ ni ma mhm. moom daan daal ci seen kaw di wax leen yéen mhm. ay fuqaraaw ngeen yor leen dara yéen a ngi waaye nag ba xoolee seen jikko ñoom ñoo ñee mu jaxasoo mooy moodu moodu yooyu mu jaxasoo daa mujj ne ah seetlu naan daal lan tubaab bi daan wax ci africain yi dara wér ci dañaa wax dañoo bañante ñu dañoo waaye dara du ci dëgg daal ndax yéen lu gën fuuf leen wax amuñu leen yéen yéen lu gën daal ndax tubaab moom mm-hmm. lam man mooy ñetti fan la lay gën a le di xaar mburu di la dafa tamaate bu jaaxam génn <laughs> waaye yéen ngi ma gis yéen ngeen mën a jël nit léegi mm-hmm. dundal ko lu mat weer mm-hmm. buy dem ngeen yëkkati alal jox loolu nekkul ci ab tubaab daal ne ko léegi te damaa ragal di leen may loon mooy seen tubaab mii ngeen tudd moo leen ko may damay dugg si la dem ba gis jikkoy murid yi mu xëcc ko ci liñ nekk mhm. ba tax man a dugg si mhm. mun leen nag damaa fee suñu tubaab ngeen tudd nag moo may loolu mhm. dugg ku fi ñëwal si daal lépp lu ngeen di participer ne ko participer ji ginnaaw bi mu joxee sax ab néeg néeg bi sax ku fi ñëw bu fay dara fa est-ce que macha allah ndeysaan ñoom dañoo mel nañ mel rek di jikkoo seen jikko di jëf lu baax di ko wax rek ci yàlla bañu càabali wax ba loolu moo xëcc koo moom dugg si te nag euh, kenn nit ku jariñu ci diine nag ko mm-hmm. xëcc ba mu dugg si mm-hmm. noo ko xëcc rek mm-hmm. euh, jar na lu ne ci àdduna ndax yonent bi ne woon na seydina Ali la an yahdiya allahu bika rajulan wahidan xayrun laka min humri naam humri naam bu ñu ko waxee mooy waaye xonk juri kër yi fee jure xonk juri waaye xonk juri kër yi waaye lam daan tekki mooy jur gi gën ci nga fexe ba kenn képp gindi ko ci yow moo gën loolu macha allah mooy naa li si gën daal loo gën macha allah waaw moo tax nag di ci taxaw suñu kéem kàttan ba ci ba ci xeeb daanaka ba ci sax damay wax ni. Mm-hmm. ba ci sax euh, Masaalikul Jinaan. Mm-hmm. xam nga taat dinañ ko. Mm-hmm. nga tax bu jël nga jël ko di ko denc téye ko. di ko denc naa jox xaw daal xaaj bi nga xam si ne dañuy tënk yoon bi yëpp ak ak yàlla bu ñu bëgg nii mel ko. nga tax ba am ci taat denc ko. joxe ko nga ko jox kenn mu dem ci xelam ba ba mu convaincre ba mu dugg si. loolu gindi kenn lay teg ci dafal boobu. macha allah jëlul xeeb it euh, ba tey boo mënul seen seen masaay jopp it mhm. nga jël ci nangami bayit rek mhm. yow nga traduire bi ci anglais bu leer rek mhm. euh, def ko ay ñetti kayit ñeent rek da ngay seet nag tënk ko rek di ko joxe ndànk fa ndànk rek di mu xool bu intérêt dugg si loolu boobaa def nga yiw wala daanaka ëpp na sàgg nag te it nag euh, noonu doogu la war a mën a demee maanaam fi mu fa yonent bi tolle woon dine ñoom ñoo ko fa jëlee ni ko cas yóbbu yàlla ko mhm. maagi morit yi fi suñu tubaab yaroon na dañ mhm. daan dox di tukki mhm. waaye tukki gën a jublu nag mooy tasaare yoon seen tubaab ci seen melokaan seen jikko ku ngeen daan gis leen xew di jëblu ci ñoom ñu jageen sëñ bi leen seexal naa ne jëblu ci yéen ba dara sëñ waxu kenn waaye jëkku def ci ñoom ju rafet joo xam ne ku ne gis ba jëm si tuwaar yi ñu gis ci yow loolu nag murid bu ne am nga ci responsabilité parce que mag ñooñu sëñ damay wax ne yoon sëriñ Tuubaa yi moo ko diine islam ñooyee doon loo xam ne ab famille ko moom mu yem ñoom bu jeexee jeex ñu sëñ caa génne kenn ba ñu sëñ caa dugal kenn doon loo xam ni dafa yem rek ci ay wala fi kese aw mm-hmm. rek ci Sénégal kese muy population bi mm-hmm. Afrique sax ëpp na ko pour adduna bépp la universel waaw ah, Mhm. yéen yàlla wax yéen tamit ba ma arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin ma ne yéen damaa bëgg rek nga nekk yërmande yi mbindeef yëpp mhm. noonu la yoon Sëñ Tuubaa nekk yërmande yi ñëpp ndax moom li wax mooy xot mhm. eh, ummatal Mustafa an kulli mafsadatin wal tarhamil xalqa yaa man jaddahu badaa ak yaa maalikal mulki yaa man jàlla an xawaadin irham jamii'al waraa kon léegi ñaan ko mu ñaan yërmande tekki mooy dafay ñëw ngir ñëpp kon nun nag am responsabilité xam leen ni ñëpp ko moom hmm. ñu joxe ko te kenn ku ne ñu seet ne la ko mën a joxe ñu joxe ko njëkk ak teraanga hmm. suñ suñu aada la suñu aada waaw aada xam ne aada la ak culture ci hmm. ne boo ci bëgg forcé da ko da ko yàqal sax dugg ci yoon am benn borom xam bu daan wax ne dana wax nga joxe ko rek diine sa génn ci waaye nag boo ko bëggee mu ngi mel ni boo foogee diine foog loo xamante ni am na foo koy toll ci diine te toll fa réer ko bopp Mm-hmm. soo toogee jaayu gileem mm-hmm. daa ni gileem gi fukki dem la jël waaye nag bu fekkee ni buum gi ci mm-hmm. léegi da ngay dàq dàq ki jaay ba bëri waaw jërëjëf loolu xanaa bokk na ci kàddu yoon bëggoon rek ñu jàll ko pour ñu xam daal fii daal ku fi nekk ku ne am nga responsabilité jàlle jàlle dine jaarle ci yoon suñu tool yi nga xamante ne ci la jaarle dine moo li mu taxawal taxaw na te mag ñi ànd moom lépp li ñu taxawal taxawal nañ ko ba seer nañ ko bu ñu waxee suñu borom may na loo bëgg mhm. noonu la mag ñi taxaw wax ni ñow suñu sëñ bi yàlla may na li ñu bëgg jëfee ko suñu tubaab mhm. ndax suñu béykat dafa wax ne mhm. li ma daan ñaan li ma daan ñaan ñëpp yàlla may na ko ndax wéeru yaram la wax wéeru yaram gudd fan njël barke àjjana ndam laa daa dagaane que di dis yàlla waxtu bu jot mu jox ma yële yëpp ëpp mu gërëmam ma jox genn ma jox cant genn cant lu mën a jot daal du jot nga jot ca te kat loo xam ne jot ci jotul mm-hmm. lu daw ba jotee bàyyi li kër gi moom la jot mm-hmm. daal ni muñal mm-hmm. te bul jàmbatu coono ko xul tawat ku am liggéey wut soo amee coono yëpp seet macha allah yal na yàlla defal tawfiq defal ndimbal bu baax jërëjëf asalaamaaleykum